société civile sax nga baal ma xëy na foofu laay terminer. Mhm. Euh, j'étais le président de la maanaam président commission des lois suñu séminaire bi ñu mu temm session bi passé c'est sur la société civile société civile nan la war a taxawee mais ñoom alinti ni ñuy def ak Seydi Gassama d'ailleurs maa ngi interpellé l'État mhm. faut pas ñu tiital na ay droits de l'homme yu demee noonu ay rajo yooyu demee noonu aful tappale la ñoom seen bopp li ñuy def ñu actuellement tey garde so yoon mayee na ko li Gassama di def di def di mu nga ñuy rey alkaati wala ñuy gaañ alkaati nga dégg Alioune Tine ibbi gémmiñam wax ci man sama kër gi ñu taal kër jàmbur yi ñu taal mu ko dégg Alioune Tine ibbi gémmiñam wax ci mhm. mais ñun donc yaakaar ne procureur maa nga la koy wax vraiment au nom de l'état laa wax merci beaucoup kii di Alioune Tine kii di Gassama dañuy petit def di jaay Sénégal pour ay xaalis mais bu am ñu le faut les prendre les interpeller et les mettre en prison loolu ko wax ah mais kan mais Amitié est-ce bu nga voyage man j'étais à man la aliment maa la ko yëg man la yëgal man la jox mission en tant que consultant ma baat les nouvelles chartes là su ba la nekk Sénégal ni mu demee maa leen nekk ci jox alinti li ñuy def mhm. mais ñoom boo leen gisee ci àll bi da di yërëm da ngay rus sax pour gis leen yalwaan xaalis jaay Sénégal jaay deru Sénégal jaay état bi loolu mooy seen bu ñu la joxee situation directe di nga wuy ji li ngay wax nii xam nga ci loolu la leer maa leen di xaar